ngir waajal màggal Serigne Abdou Lahad Mbacké comité d'organisation bi ak mboolem chef de service yu nguur gi féete ci région de Diourbel daal dinañoo daje ci ab CRD jublu ndaje gile mooy saafara mboolem ité yi nga xam ne soxal na organisation bi ñu amaloon ko ci kilifteefu gouverneur bu Diourbel Mouhamadou Moustapha Ndaw kon dégg nañ wax si wàllu matériel parce que dégg nañ nat bu baax DMTA 50 bâche pour ministère ministère de l'intérieur koy joxee cent 816 DMTA moo koy joxe deux tribunes moom mën naa am sax si si région bi am na deux tribunes ak euh, presque 216 250 chaises xëy na complément bi la ñuy demandé DMTA. su wàllu sécurité bi tamit dégg nañ li si police wax ak gendarmerie ak sa sapeur pompier donc li wàll laaj laaj si ay nit dinañ ko indi. protocole bi ni ñu koy gérer surtout ormal bi ñu war a ormal kilifa yëpp respect bi ñu leen war a jox. parce que loolu tamit euh, waa police nañ si ànd ak yéen liggéey si seen zone police wala gendarmerie si zone gendarmerie pour que loolu ñu war a def ñu def ko ba mat sëkk. si wàllu santé déglu nañ effectivement trois postes treize postes médicaux avancés je que engagé wu nañ si def ko ñaari ambulance xam naa yu jóge si district yi ak ambulance médicalisée bu hôpital Matlaboul Fawzeyni boole ko ambulance sapeur pompier yi. pense loolu yëpp lu xaj la si liggéey bi dañ dinañ ko def incha allah. donc si Senelec ñu ngi xaar mise hors de lestage Touba si boppam mais ñu def branchement provisoire yi xam ne war nañ ko def pour lieu cérémonie yi. Serigne Amsadou Mbacke mi teewaloon Serigne Sidi Mbacke Abdoul Ahad daal nay rafetlu bu baax a baax mbooleem engagement yi nga xam ne chef de service yi jël nañ ko mu dolli ci ay kàddoom cant gu mu amal gouverneur bu Diourbel ginnaaw liggéey bu am solo bi nga xam ne amal na ko mu soxal askanu Touba. te yéen ñëpp wax ngeen jël seen engagement engagement nag yéen a ngeen ci am ak pas-pas ngir def ko waaye nag yàlla na ko yàlla mot bi ba ngeen defee ko nu kawe seen jor ne ko ab laaj waxee léegi du ci dellu si sant gi la sant ak ngërëm lim la ngërëm waa Tuubaa la sant waa Tuubaa la ngërëm ndax bi nga fi toogee ba ba léegi lu rafet rek nga fi wax lu baax rek nga fiy jëf loolu nag amul lu ko gën a kawe ci noonu tàggoo ngay tàggoo itam nga xam ne mooy CRD bi mujj ci bisu sëñ Abdou Lahad war naa tax nga rafet njort wax naa tax sa xel gën dal tamit màggalub sëriñ Abdou Lahad mu ñaareelu xalif général des Mourides des na ko amal ñaar fukki fan ak ñett ci weeru shawal bii ñu dégmal